mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci xibaar yi lee ñu àddu ci lu ñeel mbiru yoon Bassirou Diomaye Faye ak Hannibal Djim ñu ñuy xamal ne nag ñoom dinañu taxaw ci ñaari fan ci weeru mai ca kanamu yoon secrétaire général bu Pastef bile ak bañkat bile di Mouhamadou Samba Djim ñu gën koo xam ci Hannibal jim ak Seydou Ba mu yore woon nag wàllu plateforme Kopar Express dinañ leen nag daal di xa taxawal lu ñeel nag ci seen dossier bi li nga xam ne moom lañ leen di daal di toppee ñaari fan ci weeru mai bi la ñu daal di jëm si mu mel ni xibaar yi lay sax nag suñu naataango yi de waa Libération ñooñu ko xamal la